mama ñu ngi lay nuyu eh, di di len sant ci dalal bi ngeen ñu dalal fi est ce que mën nga ñu wax lan nga ci eh, ki di Sidi sar Sidi sar de man ah yàlla rek fi mu bëgg a yegg Sarr yal na ko fa yàlla yeggal ndax na ci famille bu baax la bokk ci famille bu baax la bokk ci ndey bokk ci baay Bintu Njaay mi yaayam soo amul woon lii rek ma xat di àddina ndax dafa liggéey ci kër maamam liggéey bu métti la fi liggéey jur fi njabootam gi suñu borom weddi ko mu dem di ñëfee njabootam gi ba yàlla dikk Sidi Sarr fi mu bëgg a yegg moo ko xam yàlla na ko suñu boroom yeggal. su ngeen gisee ma jooy rek dama naa ànd ak maamam ñu nekk benn suñu tàggoo ba mu dem àllaaxira lañ tàggoo maam moom xale bu baax la nag dama koy ñaanal suñu borom fi mu bëgg yegg yal na ko fa yàlla yeggal am na respect ci nit yaru na xam nay kilifaam baax na xam nay papaam xam nay maamam man su dikkee daf may tàpp la na ma maam nañ dem loo bëgg ma jëndal la ko sii di daal fi mu bëgg a yegg yal na ko suñu borom ba loolu nekk yàlla na ko fa yàlla yeggal ci daraja yonent bi loolu rek laa waxoon ci am ci lu may wax ci Sidi